waaw maa ngi tudd Mouhamadou Mbacke kan ñëpp di ma wax Khadim Kane dëkk HLM Grand Diourbel euh, nekk directeur général Seca Trans bu Dakar société hydrocarbure waaw euh, ñun ñoo yor association bi ñuy wax mine de rien tous pour un boo déggee ñu ne mine de rien tous pour un parce que mine de rien lañ mooy mooy association bi ci tour bi euh, tous pour un benn concept la mooy projet tous pour un lañ ko tuddee projet bi nga xam ne moom moo mën a doxal lépp loo xam ne mën nañ ci dimbale waa Grand Diourbel donc mu nekk bande de terre bi nga xam ne moo nekk ci HLM Grand Diourbel yi ñu jëloon ko mairie bi jox ñu ko ñu def fa ay édifice lu ci mel ne terrain de football terrain de basket euh, salle de prière mujj gi mu doon euh, juma aire de jeu pour les enfants ak ñetti salle yoo xam ne bureau mine lay doon ak benn salle de spectacle salle de réunion euh, salle boo xam ne daal dinañ ko mën a joxe pour waa Grand Diourbel ñu fay defi seeni i euh, manifestation ak seen événement donc pour loolu nag mu am moom moo tax ñu taxawal association bi bëgg euh, waa Grand Diourbel jàpp ci ak képp koo xam ne élite nga wala euh, personne ressource nga wala homme politique nga ci ci ci région de Diourbel donc nag euh, ñu taxawal ko depuis il de cela quatre ans maintenant idéologie bi nag moom mooy relancer waat travaux yi nga xam ne moom lañ mettroon foofu yeggaleegul guñ ko ñu bëgg euh, relancer waat ko moom moo waraloon réunion wu tey bii en fait cérémonie de préparation d'une semaine de lancement wu projet tous pour un la au mois de décembre incha allahu rabbi donc ci gàttal tous pour un moom mooy projet bi mine de rien moom mooy association bi tous pour un nag dafa bëgg lépp li nga xam ne moom mooy édifice yi nga xam ne moom lañu ñu réaliser foofu suñu ci askan bi dimbalee ba ñu réaliser ko ak tamit suñuy loxo bopp parce que dañ ne ndimbal na ca fekk loxol borom ñun euh, def nañ inscription wu mille francs ak mensualité wu mille francs avec des membres de 300 personnes moo nekkoon suñu objectif attendre nañ ko mais nag teewul tëjuñu bunt bi teewul nag léegi loolu ce sera une somme de 3 millions 600. ñu ne dañ ci tànn ci à la fin de l'année dañuy tànn euh, benn personne ci trois cent personnes yooyu noonu nga xam ne Grand Diourbel lañ bokk ñu yëkkati trois million jox ko ko pour mu suqali boppam maanaam xool projet bi nga xam ne mën na ko jëmale kanam ñu financé ko ci trois million yooyu noonu trois millions yi nag li tax ñu choisir ko mooy dañu xam ne deux cent mille cinq cent mille un million soo ko joxee nit pour mu def ci poulailler sax problème la alors que bu nekkee 3 millions la à place muy dem banque di fa lebi parce que su lebee banque jël caution 500000 joxewaat ko versé waat ko 1 million cinq 500 lay dese bu dee 2 millions la donc 1 million 500 boobu noonu su ko fayee daanaka booy xool chaque mois mayuñu ko bout temps bu mu war a mën a réaliser li muy def yaakaar naa ne bu paree fay ba daanaka dootul deseeti dara moom moo tax ñu ne li nga xam ne mooy ressource revenu yi nga xam ne moom la ñu fi am. puisque association c'est à but non lucratif ñu ne loolu buñ ko dajalee waatee mu dikkaat dugg ñu joxaat ko askan bi donc 3 millions yooyu pour at bii la mais deuxième année bi liñ jot a réaliser suñ ci amee dara mën nañ jox trois personnes quatre personnes en tout cas daal projet bi ce sera c'est étalé pour quatre ans donc pour bañ a guddal kàddu gi loolu daal laa ci bëggoon a wax ma bàyyi sama collègue yi sama xarit yi ñoom ñu mottali ko incha allahu rabbi